dañaa ñëw net rek toppee tombeek ma naan benn gars naa nga taxawal ñu def bul juróom. affaire mm-hmm. yooyu. Mm-hmm. après si la ne si la ma gaa donga yi mu yónni nag poñe ma foofu nekk si daara ji nga xëy bul juróomi. <laughs> léegi <laughs> bi ma demee bi ma demee ba toog. ak sëriñ bi ndekete bi moom dafa yónnee woon ay yar yuñ ma dóoree. Mm-hmm. ma jékki-jékkaat toog ak moom nii rek. muy teel ñeneen ñi ñuy tari rek ma gis ay taalibe yu bari jóge fa lay yor ku si nekk yor yar boo xamante ni bii man la sum yar yu bari car yooyu nga xam ne yow yow xam nga ne lii si yow la jëm te dafa mënoon dóore nag te daf ñu la ëpp doolee fa nekk. Mm. après ñoom bi dama leen a natt ba ñuy waaja a egsi rek ma jóg dolli tëbaat rek dolliwaat duwaat <laughs> réer leen ci dëkk bi nag mujj ñu gis. Mm. man foofu laa jaaree bàyyi jàng nag. foofu mm, si daara ji ba. li tax li tax parce que après xam nañ ne bëggatuma jàng quoi. Mm-hmm. ñu jàppale ma si ma bàyyi. Mm-hmm. yóbbu ma mbuur may jàng soudeur métallique foofu. Mm-hmm. lan ngay ñi nga xamante ni jànguñu alxuraan wala ñi nga xamante ni amaana français bi kese alxuraan moom ñëpp a ko war a jàng. alxuraan mun nga dem sax ba nekk mag jàngoo ko sax nga jàngal ko sa bopp. sa dënn nit dënn jullit dënnam alxuraan da see war a nekk ndax mën na la sax dimbale nga dem àjjana ci yàlla fàtte yëpp jëf alxuraan mooy lépp lu dul alxuraan rek amul njëriñ lépp loo jàng lu dul alxuraan mm. amul njëriñ. mais boo jàngee ba pare nag da ngay jëfee. Hmm. boo jëfee doog ko jariñu. loolu message bu am solo la yéen ñu suivre si wasaare lamb wasaare TV ñu dalal ki nga xamante ne moom mooy Boy Seye mais Boy Seye nga def ñaata combat. si arène bi. Hmm. non man na samay combat moom chaque jour dama si am problème. dafa mel maa la gën a xam sax sa palmarès. waaw parce que topp nga ma ko xam nga ma. <laughs> sa dernier combat yàkkal loolu. Youssou Ndour. Mhm. avant Youssou Ndour. ñu gis na da nekkoon ci dynamique bu baax. Mhm. booy sëy nga tegle fi sept combats sept victoires. wala neuf kay. sept oh, huit combats huit victoires. Mhm. su sa neuvième combat bi seen la kiiwee. si ma daane si la ma sa xarit daane. kan nga ci njaag. <laughs> non njaag dama ko faaw dama koy. kii mu la koy wax léegi rek. nee dama koo faaw parce que dama ko dama dama sonal booy sey ci kii boobu noonu. noonu la demee. nga nekkoon nga nekk xale nekk Kër Masar mën wax ni yaay fi mujjee génn mais ñi njëkk ràññee si nga bokk. Mm. ngay tegle ndam di di bëre di moins di bëre di bëre bëre nekk ci dynamique bu baax. Mm. Euh, mais mën ngaa ñëwaat ci li nga xamante ni moom mooy euh, kii bi neuvième huitième com première bu neuvième combat yi. bi man nag bi ma koy bëre. boobu boobu dama dama ñor xomb doog a ñëw. boobu ak Faalaay Balde junior. ngir Faalaay Balde. ñaata lañ cent mille. Mm-hmm. ku matul cent mille de. isa woon quarante mille defe naa la woon quarante mille lañ ma fayal. ku tëggoon loolu. sëñ Modou. ok sëñ tëggoon Esaat Ndiarème. Mm-hmm. waaw. ma daan ko non mën na ma ñëw tegalaay ay victoire loolu moo ma génnee benn saison dama si bëri trois combats beneen saison bi ñëwaat ma bëri si quatre combats. pare gars yi commencé xam. ba pare chaque mardi mardi bi buñ ko tëbalee bi si teg bi si tege dinañ teg sama combat bantamba wala soit si yeneen. émission làmb yi. Mhm. gars yi dañ doon dem ba dañuy yaakaar samay combat yi passé la teg fekk combat yi maa ko doon bëri chaque saison chaque weer dama siy bëri deux combats. comprendre nga. parce que man mënoon naa at bi mënoon naa si bëre sax vingt combats parce que man chaque weer. dama doon bëre deux combats deux mois yi ma bëri si quatre combats. après nag si lañ ne ma nag arrêté quoi su ma demee ba am benn numéro rek ma naa arrêté. voilà yeneen yi si des nag mooy moo moo demee noonu quoi saa yoo ñëwee saison nga bëri si benn combat. wala ñaar. parce que làmb ji léegi préparation yi mooy metti day metti tellement que ba nga xamante ne bii doo mën a jëlandoo ñetti combat mun nga am sax ñaar mais. staff bi ñoom ñoo la koy wax parce que fi ma toll nii man nekkatuma Boy Seye boo xam ne man li ma neex rek laay def non non dama nekk ak ay kilifa yoo xamante ne bii ñoom li ma li ma war a def ñoom ñoo ma koy wax heure bi ma war a entraînement xam nga lépp ñoom ñoo ma koy wax combat yi ma war a jël comme ren jii nii jox nañ ma lu mat ay six combats yoo xamante ne bii ñoom kii ak ñoom Baara d'accorduñ si ma man tamit ànduma si. combien de combats. ay Mamaya ay Boursine wax nañ ma ay Bour Sine ay Gin bu Yoof xam nga ay Boy Balde. ay boy nga ay kii nu mu di sax. daam seen. bari na daal ay combat yu baree bari. ay waaw parce que tamit xam nga. làmb gàkku dëë dafa nooy bi sax. Ah. ñoom dañ na ma boo ko jëlul da ngay année balance. te saison baa ngi daw ñu ngi ñu ngi yaa ngi kii rek nañ ko nañ ko jël. kii mbër la de. non gàkku champion la. après wuy ma dinañ ñëw suba nga may jigéen naan kii nag bu mag champion bu mag gàkku de borom géej waaye. noonu la demee euh, booy sey euh, sa combat ak njàkk. Mhm. avant ngay dem si njàkk euh, ban combat nga ni yaa xumbal lool. non non après njaag laa bëre xumbal. mais avant njaag kan nga jëloon. Dudu Xadi. Hmm. mbër yi xawul siiw yooyu. Dudu Xadi laa jëloon. xawma ko woon sax man déggoo lu ma la wax. yow kay yow Boy Seye a man nañ ma doon woo rek Matar Ndiaye dafa ma doon woo Seye yaa ak diw rek ma ne ko acca naka dal. boobu amoo encadrement amoo dara. aw ma cent franc man maay demal sama bopp. nga am encadrement maay defaral sama bopp ay gàllaaj maay dem bëre ji. Hmm. ànd ak mafia bi ñëw bëre ji. nga am encadrement di daanu rek. après euh, njaak nga jël njaak Boy Seye nekk ci dynamique bu baax jël njaak njaak sax wax nga ne ndax yow est-ce que njaak njaak yóbbuwuloon sa xel ci bisimilah. Hmm. Ah. comme nan noonu non dama ñëw bari ko nice yàlla xëy mais mais xamoon nga Ndiak yow xamoo ko woon. xaw ma ko woon man Ndiak si biir làmb ji laa ne Baara bu dugg see nag ma ko wax Baara moo ma ko woon Baara moo ma ko woon King sama combat bii nii lañ xamante. ok léegi man ak man ak kii bii nii man ak gàqu dëw bii. ok léegi après nga jël Ndiak xamoo ko waaw nan ko doon préparé ko. xam nga mbër en général ñi ma bëreel daan leen ñëpp noonu laa leen préparé. en général déet buy buy bëree day jël turu yaay affaire yooyu ah. waaw mais Ndiaye xam nga turu yaayam. nit xam turu yaayam. Ah, sax. ma kii la Serigne Touba mu may déglu. Matar Ndiaye. mosuma bëreeg nit xam turu yaayam. Mm-hmm. nga ñam sa première défaite yaag Ndiaye. waaw te su ma nee naa moom moo féete à gauche Ndiaye féete à droite ma sifflé combat bi nan ngeen ko bëree yéen ñaar. waaw dama dox ci kawam rek. def yu lu ma daan def man moom duma ma man nag gàlla man loo ma mën a yebee moom bu ci boolee reculer boo si boolee reculer dem ma bëre ba pare nga ne déggaloo ma man mënu ma reculer avancer rek laa mën parce que loolu laa jàng si laa jàngee bëri quoi maanaam avancé njaag dama dox si kawam dóor ko ay gauche droite ñu daw jàppante mu nar a génn saako yi mu génn saako yi ma koy xëcc di ko xëcc di ko xëcc ba ba ba forcé ba sama poids ëpp si ginnaaw mu jeexi-jeexi rek ñëw fekk si ma bi may fekk si la ma dóoraale ci xabal ma ji ma daal. ma jóg dem ñibbi ah jommi ma de. non jommi billaahi jommi wu ma mësul am ko mm, defet daanu sax toog géew bi di karaani wala mooy def ay business damay jóg dem ñibbi ñu yëkkati ñu ma àndal neleen leen ne leen dem ñibbi du fii lañ koy jooyee quoi parce que am na ba pare quoi du fii lañ koy jooyee. Mhm. jooy bi leneen la. mooy dem xoolaat. liggéeyaat mais pas ay nekk si làmb ji di jooy wala nga koy xalaat. wala yu mel noonu non non da ngay waxtaan ak ñi nga war a waxtaanal rek. ngeen kiyaat ngeen nekkaat si course bi. njaag dem <laughs> ma jógee si njaag fils de Balla laa bëreel ñu mat si nil. ñu wax nga rek mooy seen combat safur sukka safur kii. kii bañ daanu ngeen ngeen kenn kii di zongale. Hmm. kii di zong ñoom ñaar ñoo bokk xol <laughs> lépp lu ñuy kii moom ak fils de Balla. waaw bokk même bëre. zongale zongale. non moom moo doon zongale moom moo ne ma signature bi yow booy say zongale rek nga am ma ne ko bu jour ba yaa teg zongale bi na la ñu bëreel leneen. si la ma zongale ñetti yoon ci kaw. léegi mm, yow yow yow yow noonu man ay caxabal ay dóor gauche droite laa fa nekkee woon. Mm. combat bi mi ngi man de. parce de Balla combat boobu man maa ko envoyé barki démb sax amu ko woon. mais yéen defet kenn ku nekk no dañoo bëre de ñun ñaar ñun ñaar match nii luñ match niil boo xam ne dégg la déglu ma expliqué la fils de niil boo xam ne dañoo taxaw di léwtoo wala dañ doon bëre de. ñu jëwee loolu minutes yëpp dañ ko bëre. dañ leen a jëw ba. bi kii moo ko doon rapport Lamine Samba ak Bekaay Mbaye. après combat boo dégloowee ñoom noppi wuñ. mais parce que seen mëni. action sur action lañ doon def mën a man sama mënin. que ñëpp man sama mënin. si sama mënin lañ ma fekk. Ah. <laughs> yow xamoo sama mënin de. Ah, nekkul loo xamante ne man maa koy wax. non man loolu du sama mënin cest xam nga la mooy problème bi boo tegalee ñaari victoire yu nuroo rek dañ naan loolu nga mëne. mais yow man ñaata combat laa bëre. Uh-huh. yow euh, ko am ay 14 combats. Uh-huh. mënoo see génne 4 zongale. man isa du ñetti nit laa zongale man man xumbal laa fi zongale. ak uh-huh. duudu xadi ñaar ñooñu kese laa fi zongale ñi des ñëpp ay kenn naa la xamal leen nag de làmb ji ba mu daj. billaahi wallaahi taalaay benn mbër ëppuma ma kele daaxu ma bëre. Ah, mais kon parce que xamala moo tax. mënul bëre xamala moo tax loolu. man ñi may bëreel ñëpp ñëpp ñëpp mooy ñi ma daan ak ñi nga xam ne maa leen daan ñëpp dañuy taxaw di ma déglu comme comme si que man man maa war a bëre man kese man maa war a bëre te bëre ñaara koy def. comprendre dañuy taxaw comme man maa war a bëre te bëre ñaar ñoo koy def mhm. léegi nag yow su fekkente ni ponkalu magum jëmm di posé ay cent nangam kilo xam lu ma la wax ay mbokkam yab ko yow say mbokk yab la mhm. yow nga bëgg a ñëw rek nga ne dama ko fiy jëlee fët fët mhm. bu boobaa bëre bëre doole rek nga mën a bëreek moom bëre doole. te bëre doole mooy. ko combat yi nii bëre doole la nit boo ko ay plaqué ay zongale ay yenu yooyu ay bëre doole la yaa ngi dégg. mais ñun li ñuy bëree duñ toog fii naan lii lañ mëne lii lañ mëne. mais sa jëw moom dégg nga ko Boy Seye. waaw loolu garaawul nice. Boy Seye mënul bëre. Mm-hmm. lan non loolu yow rek yaa ko ah, wax. yow Boy man nga xam ne bëre sax ci man lay muslu bëre mi mi nit ñi di def ci man lay muslu. Boy Seye Boy Seye yee. man damaa mën a bëre. da mën a bëre bàyyi ba ñu Boy Seye ma jógee ci fils de balle dem ci kan. ma jógee ci fils de balle. Hmm. xamatuma ko de. <laughs> waaye yow xoolal du xaw ma mbëri man man ma jàkka ci mbëri ah. mbëri suñu leen kiiwee su leen daanee suñu lam sa kii xool ndeysaan sànq mu ngi doon wax aisément mais nga jóge ci Liss Dabala dem ci mooy ni xaw ma nga bëreeg mbërum yoof bi xale bi nga xamante ni dafa xew mu jaatu yoof. waaw. Boy Sèye nan nga mën a jóge ci defet jógewaat ci match bi nii la di xale boo xamante ni nekk ko ci dynamique nga jël caatu yoof nga ñëw nag. booy moom non non bi ma jógee si kii fils de Balla baaratin laa daan baaratin bu Manga 2. mais après jël nga kii caatu baarat da ngay rek baaratin laa daan. Mhm. seetaan nga combat boobu. combat Manga moo ko tëggoon baaratin. Mhm. laa daan. Mhm. bi ma jëlee baaratin ba ma daan baaratin maa nga tëggaat sama combat. mais da nga man suma ma moo yor lépp xam nga tey làmb day toll foo xamante ni bii comme li ma la wax sànq rek ma ne la encadrement boo gisee ñu ne dafa baax si mbër. encadrement mooy ki nga xamante ni bii gis nga boo jugee fii nii tag rek mhm. même soo ñàkkee sax moom dina xam fan la la mën a roof foo xamante ni bii day mel ne ñàkkoo quoi xam nga li ma la wax moo tax foofu laay waxee ak yow man bëre dama ko bëggoon man nekkuma ba may bëre yooyu noonu dama bëgg bëre koo ma jox damay bëre kenn musul wax Matar Ndiaye mu may dégg nit musuma woo nit na ko waxal ak Matar Ndiaye si combat bi Matar Ndiaye tamit musuma woo ma ne ko bëgguma kii jox ma keneen. dëgg la xam tag rek. diw. ma ne ko na dal du ma ko laaj sax ñaata lañ ma fay. sama yoon nekkul ci kase. da nga jóge foofu noonu ñëw jël baaratin daan ko. Mhm. baaratin pourtant bi ma koy daan. Mhm. am na sama benn grand bu ne ma est-ce que xam nga baaratin ma ne ko noono xam naa ko nii rek arena tour mu ne ma doomu mbaartin la. arena tour boobu moom la Manga dugaloon te xam nañ li tax ko te est-ce que daanoowul woon quart de finale xaw mu jugee foofu. mu jugee si baarati nag si laa ñëw si caatu yow mu daan ma. combat boobu lan mais dañ ma ko jox ma jël ko rek man aw ma lu may tiit nag de combat bu ñëw man dama koy jël léegi nag mën na mën na changer. mais jamono yooyu. ba nga koy jël xamoon koy jël benn combat laa mos a muy franc benn boobu laa mos a seetaan te esaat laa ko seetaanee. mais dama ne comme que bëre naa ak Franc rek kon mbër la quoi. Mhm. loolu laa waxoon. ma ne Matar na ko dal. waaw. Ah. ren mu taxaw combat boobu defe naa Aline Diop moo doon bëre grand komba bi sax moo Tigre bu Somone. Mhm. maa nga moo ko tëggoon boobu tamit. Mhm. Hmm. lan moo daan sa combat ak Thiatou lan moo ma daan war daanu moo ma daan. Hmm? tey boo ko di seetaan combat ah, ci bëree. Yoof nag moom si gàttal moom dama ma ko considéré woon mbër. respecté moom da moom si boppam ci jëmmam ak formam ak ni mu bindoo ak ni muy waxeek yooyu. du xaw ma ko quoi. xaw ko woon bi may bëree moom mais mu ndekete mbër kaamil man bi bëree ba pare rek dama ne ñi ma bëreel ñëpp kii mooy mbër bi. dama ko wax ñi ma àndal ñu ne ma noo kii du mbër man leen bi mbër la. parce que si biir combat bi. mbër boo bëree ba pare yàlla yow yaay xam voilà moom mbër la quoi mu daan ma ma jóge fa jël xumbal moo nekk sama premier grand combat. mais combat la woon rek ñu jël ko tamit ah, am seen ndam. aussi hmm? amoon nga pression. comme man boo seetloo bu ma jugee si defet bi may jël mooy gën a diis wala seetloo loolu. aussi man aw ma pression ci làmb de. nga boo yooyu yëpp dañuy ñun dañuy daanante suñu biir mënul ñaax parce que liggéey la dañuy daanante. Mm-hmm. dangay jël nit ñu ne la yaa mën nga dem mu daan la da ngay jël nit ñu ne la moo la mën nga dem daan ko. Mm-hmm. kenn mënul kenn yàlla moo fi nekk mooy maye mooy xañe. Mm-hmm. voilà dal si Youssou Ndour mu daan ma. nga nuyul ak moom nga daan fa sanguinaire. déglu ma la ba ma pare li ma gën a metti mooy Balla Gaye ki nga xam ne mooy tëdd fil bi sa xarit la. Hmm. mais booy say yow lan nga singalee école de Balla Gaye. samay adversaire ñoo nekk foofu rek du na mu leen singulé de non écurie bu ma respecté la écurie la boo xamante ni bii tey suñ demoon ba amatuma droit nekk Kër Massar isa duma dem si écurie boobu comprendre nga. waaw parce que Père Balla si boppam borom écurie bi man sama xarit la. sama xarit la Père Balla moom xam bu ma déggee Père Balla doon ñëw si làmb fekk mooy bëre sax muy dugg si si làmb ji day day dugg rek xam ne man maa war a bëre. samay làmb moo doon jegee tellement ba kenn du ko yëg. mais day ñëw rek gis ma day jàdd ñëw conseil ma demaat. sama xarit la. nga jël Youssou mu nekk combat boo xam ne ñu bari ñi naan tey mu rey ko Boy dafa décidé Youssou Ndour xam li mu xam parce que taay bi tamit ñu gis ni Boy Seye entraîné ndeke Boy Seye daa musculé. Mhm. li ma gën a surprendre Boy Seye boo demee wax mu ne la dama koy def nii nii. jour combat ba. mais xam nga combat boobu yéen ngeen ko. combat boobu dama see daanu. Mhm. mais ma man maay borom komba bi. ñàkk rek laa def mais ñàkk bi rek moom laa ñàkkee komba bi. parce que bàyyi nga sonn. non non bàyyi ma ba sonn ma dox si kawam mu daw ñëw ma ma jàppanteek moom ma wàcc jàppanteek moom yaa ngi dégg. mu daw plaqué ma surux. fu ma taxaw sax jógewu ma fi daf ma plaqué moom surux ci boppam. comprendre nga man ba léegi puusuma paasuma. mais dafa mooy li ma la expliqué rek mënuma ko puusuma paasuma. mais gars yi peut-être mais man moom mënuma ko. mais combat boobu puusuma paasuma moom moom moo doon def ay action yu ay action yoo xam ne man fi ma taxaw laay taxaw. Mhm. du ma du ma du ma wéyale du ma def dara. mais moom day def li muy def ba pare di rëpp. parce que moom. moment boobu man doole feeñ na fa ma ba ma maa ko doole foofu bokkul sax. parce que loolu moo feeñ ci làmb ji. moo moo am sax. mais man Youssou Ndour man tolloowuñ doole tolloowuñ doole Youssou Ndour man dama man seetaat naa ko ba pare doog a ñëw ci làmb. yaa ngi dégg. waaw ah, moo la mag. moo ma jiitu si làmb mu Youssou Ndour moo ma mag moo ma jiitu si làmb moo ma njëkk xam lan mooy bëre déggoo li ma la seetaat naa ko mu bëre ma doog a ñëw si làmb. Mm-hmm. sa isa comprendre nga li ma la wax bëri ak ñoo xamante ne bii tey ñu ngi ci kaw ñoo xamante ne bii moom dafa bëreeg ñoom isa xamul ma la wax te làmb day am foo toll foo xamante ne bii làmb xaalis moo koy bëre te combat boobu dañ caa sonoon dañ cee sonnoon de. non làmb la rek xam nga làmb moom déggoolu ma la wax ay musique xanaa xamoon ne Boy Seye day jékku nit dañ koy jékku. mais combat boobu feeñu fa man yëgu ma ma fa musique la man xam nga lan laa fa yëg xam nga mhm. maanaam dama bëree ni ma neex waa moom loolu laa fa gis man maa bëree ni ma neex. man non maa daan sam bopp. si ñëw war a teg combat bi si yoon ma bëree ni ma neex parce que man su may bëree mbër man sa état daf sa état laay xool boo simee koo rek. damay xam ne coono yi ma daj daj daj nga ko wala dajoo ko. comprendre nga mais làmb yenn saa yi staff day gagné combat. comprendre nga mbër mën nga ñëw gën a pare mbër mi mais staffu mbër mi mën na mën mën na ñëw gagné combat bi. comprendre nga yow xam nga sama digganteeg Baara. sama lépp la. Baara sama digganteek moom Roussel da cee am. yaa ngi dégg su ma bëggee wax dëgg sax da kay xoolaat. dafa am benn ñeewantal buy dox suma digganteeg moom te mbër boo ko yoree doo ko rus mën ngeen a sekk jàmm nag lépp mais doo ko rus bu dëgg jotee wax ko bu defee lu mbërul def wax ko mhm. yaa ngi dégg mais moom loolu du defoo de maanaam moom. waaw bu mu am si moom la moo ma jàngal sax ni ñuy mas kanaara écrit Kër Masaar mbooloo. Mhm. comprendre boobu kenn jàppewul ne man dinaa nekk mbër mu ne ma yow mbër di nga doon mbër mhm. di ma orienté gars dañ ko daan ree sax comprendre nga mais moom boobu yàgg na ci. làmb xam na quoi noonu la demee combat boobu daal gaynde boo bëggee dégg dëgg bokk na si combat yi ma gën a metti